nga bind Khelcom production nga abonné te bés cloche ci notification bi mën a jot bépp vidéo Khelcom production jërëjëf dama bëgg ñu ñëw ci li wuutale Serigne Touba ak nit ñi maa ngi ñëw ci caabi joojee nga xam ni sëriñ Touba ko yëkkati ubbi buntu ba suñu borom may ko li nekk ci biir lépp tax ñi ko topp ñëpp topp ko ndax kenn ku ne li nga xemmee moon mooy la nekk ca biir magasin boobu te sëñ Touba rek la ko yàlla jagleer moo tax danaay wax ni mboolem seex si toppoon sëñ Touba kenn ku ci nekk bi ngay topp sëñ Touba mënoo woon ñàkk sëñ Touba te sëñ Touba mënoon na laa ñàkk léegi-léeg nga dégg ñun la. diw nee na bu dul woon ak man di moom waaye gis nga bu doon ak sëñ di man gis nga bu dul woon ak sëñ keneen ku mën a doon du baax yërmaande jim nu ëmbal tawfeex jim nu am ëmbal sutura jim nuy defal ku dul sëñ tubaa mari ko ni ko sëriñ tubaa ma ne koo jàpp ni waxuma ko mi ngi ci biir xaadim rasul nee danaa la wax mbubb yoo xam ni ku dul sëñ soloo ko ci yàlla dub wàlliyu nag dub xutbu dub xawsu du ko massa mom jamono mbubb yi ma lay wax melum sa Tuubaa moko massa genn ci armoire sun borom sol ko mu jot ko na ngeen ma tewlo sëñ bi neena sun borom dama ubil mangasi dama ubil appartement bopam bi ñu bok ci dëkk jawaranil muxtadirul maliku bima ulinat li bihi al muluk neena dekkale na mak yalla sun borom tabaaraka wa taala daane jawaranil jamilu hama jamsasin ila ilaa bi madasi Cheikh Amadou Bamba neena sun borom mujjuma ma ci biir appartement bi may bëngeer mais li am kuy mo dugal ci gette te yewoko koku fuko neex for ngooñ fuko neex for kad te kum kuy mu fi dugg tam ëpp la dole bu ko neexe mbeuk la seigne touba kum kum neex mu genné la ci nguruk yalla gi te ci dugg ya malikal mulki li wasahta duna jawan fil mulki wal malakuti dakhla yalla wasa'ta li tawsiatan yaxbituni fiha siwaaya li anar taatani sëñ Tuubaa nee na ba yàgg suñu borom ne ma Ahmadou gis nga armoire bee saa yére ci nekk demal bu la ci natt boo ci natt mu jot la jëlal ma may la yàlla mosu koo wax kenn sëñ bi nee na ma làmb daj meen mbubb mooy man laa yusalu xamaa yafalu wahum yusaluuna loolu ku dut yàlla ëpp na la mooy koo xam ne buy def du kenn bu noppee di rendre compte kenn te ñoom ñëpp ñepp mom lañu ñu rendre compte sëñ Tuubaa nee ma tek mbuum mom yalla ni ma déedéet ahmadou natal ba xam bi neena ma nat mu yam ci man kep japp ma lo sun borom neena fabal ma may la akamtani ikrama man la yusalu an fihlihi bi ni'ma rabbi mawilu ilu may bëgg a dem yàlla ne ma ahmadou déedéet yere yi des na làmbaatal sëñ Tuubaa ma lamb daj menen bubu mu yuma kana allah li yuxjisahu min shay'in fi samawati wala fil ardi innahu kana haliman qadiran sëñ bi nee ma teg ko fa yalla ne ma ahmadou natal manat mu yam ci man kep jàpp ma lool sëñ Masir mel ni ma ko taxoon a jóg mu ni ma jëlal ma may la sëñ Tuubaa ne akram ta nii ikraama man laa yox jisu an mumkinin maa idaa yéen a jësoo may bëgg a dem suñu ni ma ahmadou yére yi des na làmbaatal sëñ bi ma làmb daj mbubu maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaxin mooy nekk fi yéen jeex yéen itam da ngeen di jeex yàlla moo dul jeexal moo dul jeex sëñ bi nee na ma bëgg a teg mbubu moom yàlla ni ma ahmadu nattal ma natt mu yem ci man képp jàpp ma loolu mu ne ma jëlal ma may la sëñ Tuubaa ne yi jëwdu lii jawaaduma laa yen fadu waaye wa kullu maxluuqin si waaye yen fadu xaadim rasul nee na yàlla jox na ma lu dul jeex mindeef mu dul man da ngay jeex dangay jeexal sëñ bi nee na ma bëgg a dem yàlla ne ma ahmadu ma ne ko mbàkke mu ne ma yéere yi des na làmbaatal mu mu garaaw lay bëgg a wax يونت بي سولون نكو تا موي خير خلق الله سن توبان وهو الكريم الذي لاجله خلقت خلائق الله كالاملاك والبشر وكالسماوات والارض قادمه دما اخني قادم رسول نينا يونت بي لو يالا بند موتاخ مو بند لا دما لا يخني مبمي نات نكو موي مبو وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما غاني دانيو ديك فك مو توك ني نكو ميرو اصحاب الكهف لا نلا دون لاج yonent bi ne leen bu subaa ngeen ñëw ma tontu leen fàttee wax insha allah tey yàlla moo ko digoon ne ko wala yatuunaka bi masalin illaa jihnaaka bil haqqi wa ahsana tafsiran demal rek yow luñ la laaj maa lay wax firimi gars yi dikk ne ko mbirum yéefari yàlla ne ko xul yaa ayyuhal kaafiroona ñu ne ko mbirum mbërëgu jigéen ñi mu ne ko xul huwa asan faatasilu nisaa fil maidi mbirum doj yi mu ne fa xul yeen si faha rabi nasfan mbirum ruux mu ne ko xuli ruuxu min amri moo tax réponse bi dikkut gaa xey ne ko réponse mo ne ba suba ba yag sun borom yabar jibril ne ko ne ko maa waddaaka jibril moy démentir nan ko maa waddaaka rabu koo maa xalaa sa borom bañu la bayiwu la waye neena mi mu tegon fi nga sol ko dala upp bul ko solati wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dalika ghadan illa an yasha allahu mun ko ha mun ko wa lol la yedde neena na mi bul ko solati señ bi neena na mbub mu upp yonenti bi jeerut ma nat yalla ni ma ahmadu yow leneeni sa borom nga natal sëñ bi nee na ma natt mu yem ci man képp jàpp ma lool yàlla ne ma jëlal ma may la borom Tuubaa si utul si saa al ilahu ya saa uma si tabilaa durin wala moom lu ko soob soob na yàlla lu soob yàlla soob na sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul des na meneen te mbirum ashaabul kahfi ba tey lu leer ñëwut sa yaquluuna salaasatun raabihuhum كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا خليل ñii nee nañ asaabu kafi ñett laa xaj ba muy ñeent ñi naan ñeent ak xaj ba muy juróom ñi naan juróom ak xaj ba muy juróom benn ba jàng ñu ne seen seenub lim ñu néew ci ñooñu laa bokk waaye ci sëñ waxul ab lim ñu naan ben laak ñaar la ay tour sen tour ya la andi ben yon sen tour ya toog na ñu dikk laaj ko mbirum asaabul kahf mu ne gees ne laaj leen ko daam abdourahman loo moom ci waa asaabul kahf la bokkoon te taalib bi sëñ Tuubaa la mi ngi ci ni boroomam la waaye meneen bu ba ngi nii ma lay bëgg a wax sëñ bi nee ma bëgg a dem yoon ñu ne ma yére yi des na làmbaatal mu mu garaawa ngi noon nag muy kullu man alayhaa faan kum jot doo dee wa yabqaa wajhu rabbika sul jalaali wal ikraam kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu shay'in haalikun sëñ bi nee na ma natt ko mu yem ci man képp jàpp ma lool suñu borom ne ma ne man mii aji des maa xam le ni yow Ahmadou Mbacke da nga fiy des doo fi jógee sëñ Tuubaa ne ahyaaniyal baaqi bila imaata wala tanaasuin wala shamata saidanil baaxi bi annil baaxi waxaadali mawaahibu subaaxi kafaaniyal baaxil mamaata sarmada wa bi baqaa'iya yasuru ahmada tayit yëgal yaara ah. sëñ Tuubaa nee yàlla mooy wër mbindeef yi naan leen na ngeen yëg ni kii du fi jóg topp leen ci Ahmadou Mbacké moom du fi jóg yuallimul xayul lasi lay sa yamut bi anna ni xayun bihi lastu amut yàlla mooy xamal gars yi ne man kuy dund laa tudd ma faatu man xaadim rasul ak ñi nga xam koo jàpp ni waxuma ko mi ngi ci biir ci moom laa tàmbalee waaye dama laa bëgg a xamal ni sëriñ Tuubaa moomu la sëñ bay jaxate waaye ne ko sëriñ bi noonu yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaatee nu xaf yaa nu tee xëy daanu yàgg gën a baax doo fecci wëllëre doo mbas kenn doo digge war ku dul yow ak man a yam yow rek rek a fi baax ku dul yow ak man a yam day génn def lu rafet dellootu ci bon bonam yow rek a way ci lu baax yaate yaa tax sunuy soppi bég yaatee sunuy noon a bég ne ko budul ko nag yow lu bon am sant naa la bu baax doo fekk ka gàcca doo fekk gàcca te doo seetaanu ay jëf dundal nu dund sa digg nun di dund ni baax suñu digganteeg Sëñ Tuubaa bu dundee rek lépp baax waaye sañ tubaa moom xam nga ku ci ëppale ki ëppale nga xam ni moom moo ëpp ëpp cër ci sañ tubaa li sëñ tubaa doon séddale moo ci ëppale mooy alaaji Faliilu Mbàkke man maa la ah. waxuma la lu may làmbot bokkoon na ci moo ji saatam waaju ñàkk ju ñëw Seex Fàllu may ko mu oomal fa yàlla lu yaa yàlla def loo bañ bañ bañ asal loole dafay xam te mooy ki def seex faalu mi gën ñépp yàlla soorala soorala amiin maha waaw foo xalaami na bindum Sëñ Fallu bokkoon na ci moo ji saatam waaju dof junu yeew Cheikh Fallu faj ko mu wér bay baa ku waaye bokkoon na ci moo ji saatam waaju ñëw bëgg nguur Cheikh Fallu fal ko mu raw maasam ga yëlaw ku dilila singor singor singoor ko fal ba ca kaw singor ni seng ca kaw cay seex fallu yalla bu len ko pis bu len xap xappal la fallu waxon ko len ko mako fi tek day yalla so la minima la ji khare lamina mbindum Cheikh Bamba yàlla gis nga dama lay wax lu leer xam ngeen fu ko sëñ Tuubaa jëlee Xaadimu Rasuul nee na damay doxantu ci pays suñ borom yi lu ma gis ne yàlla bëgg naa lii mu ne ma jëlal ma may la fenn rek lañ discuter nee damaa gis ak leer ñu teg ko ci waa njoowaanu wurus guñ xoobee lu ulu ak marjaan malaaka yi di ko jow ma ne yàlla bëgg naa lii suñu borom ne ma kooku mënu koo joxe ma ne ko lu tax mu ne ma sama ngëneelul boppa ndekete sëñ Fallou moom cërub yàlla la moom dencaloon boppam sëñ Tuubaa ko mënuma koo ñàkk suñu borom ne ko mënuma koo joxe yéen may dégloo sëñ tubaa ni ko mënuma koo ñàkk suñ borom ne ko mënuma koo joxe suñ borom ne sëñ tubaa dinaa la poser juróomi question boo ko trouvé ma jox la ko sëñ bi ne ko lu doon mu ne ko kii boo la ko joxee noo koy tuddee mu ne ko Muhammad laa koy tuddee sëñ tubaa loolu la tontu yàlla mu ne ko waaw moom ci wan weer lay feeñ mu ne ko rajab weeru yàlla kasu sahrillahi rajab la sëriñ tubaa wax mu ne ko way juróom bu jigéen foo koy tànne mu ne ko sërif xaqan ci askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna awa busa ci la sërif yam mu ne ko ban bis lay feeñ mu ne ko sayyidul ayaami aljumaa ajuma moo gën ci bis bi bis yi sëñ Tuubaa nee na yàlla may na ma bisub ajuma malakanil maliku yowmal jumaa moo tax xëyal suba teel bul sax liggéeyi sangu ba set sol sa yére yu weex tal laal parfum dem ca jàkka ci naan da ngay julli ji di gëmoo sëñ Tuubaa baa ngay liggéey kenn du la fay ajuma sëñ Tuubaa ko moom waaye bon balaa imaam yow jiitul ca jàkka ja ne fa di julli rek yaakaar ni da am ajuma ak yooyu te bëggoo sëñ tubaa waxuma jébbulu de jébbulu leneen la bëgg sëñ tubaa laa wax jaamu yàlla gu ne bëgg sëñ tubaa ab sart la ca looy defal yàlla te bëggoo sëñ tubaa yàlla bëggut laa wax ajjuma la sëñ Fallou feeñ jamono keroog bi muy feeñ jamono sëriñ tubaa wax na ni sun borom dafa wax kuréelug yàlla gi muy jundullaahi ne leen bu kenn des yéen ñëpp gunge leen leer gi leer gi nga xam ni moom mooy ki nga xam ni sëñ Tuubaa Mbàkke laa la wax baax na suñ Tuubaa de moom ku ci wax bay ban nga wax ci lu baax ay gaayam yoom am chef la yoo xam ni boo waxee luñ mën a dégg ñu wutal la musuwaar jox la xaalis boo waxee leen ñu duma la rek murid gi daal foofu la toll fi ne moom waaw xam nga ni sëñ bii bis bu ci du bis buñ ko joxoon ndigalul duma ah, nga xam ni ay jàmbaar am nanu barkeb sëñ touba la la wax waaye ndokk éhé le sereer ba waxone rek sereer bi da magal ci Touba magal gi neex premier magalam magal gi neex lool ana sun bokk sereer yi ngon jot ñu tante def ni tak radio yi mu dik bëgg jël ñu ne waw ki di soga dik ci bamba ji mom xamugul lu xew di laaj kor lu muy bëgg wax mu daal di jël radio bi daal ni fuf xam nga ñak ci xaan wala mi ne tek mu ne waaye damay laaj ndax bamba gi ku bëgg bokk bokk ñu ne ko waaw mu ne billaahi bokk naa waaw noon rek la demee sëñ Fallou moo gane jamono kuréelu yàlla gépp gunge ko waykat wane aljuma tey kasu rajab la takku juddu ilaahi dar ko mbër may bàkku nee nañ keroog daam ni buñ ko nampal feeg jant bi so buñ ko jox toqental inni ya abdullahi moom la isa aljuma tey kasu rajab la takku jundu ilaahi darko mbar may bàkku aljuma tey la suura yam la sangu jundu ilaahi darko mbar may bàkku nene garaat tànkali buñ ko nampal feek jant bi soo bus ko jox too xental iliyam tulaayi moom lay saa waxoon di mbim jureel go رون بوسا بك احتوينا ما لو نساق صلى عليك الاكرم الخلاق ببس ودلو سينو دال كوي ni liir bi dana toog bay atte gan gi daa gën a jamono tey bis ba del si ñu di ko ngénte Cheikh Rafal ne ah bisimilah jàmm gan gii mooy toog dal koy ngénte lampu liir bi dana toog ba yàtt sëriñ bu mag ba moo ko tudde faadilu mu nga neelam doon faridun kaamilu bu mag bi

te mooy imaamul anbiya ulay alaaji fallu waa aras xam nañ ko dawaa diwaan ñoom ñëpp ràññee nañ ko sëñ Moussa Kane alaaji mi xutbu samaan la maam la xawsu la suufiyu la doomi daam la alhaaji mi ku wattuwul mu gaañ la mooy moytul meram dogitu baar ak weñ la pëliyaane yomma mujji baaba mujji wala hibbil ngal bi ndataa doo sajji faj aajo kenn ku ci mel ni moom amut maa la ko wax dafa am benn chrétien dafa dugg ci taxi mu ngi takk croix bi borom di ko xool chrétien bi de daan li may lijjanti ji yàlla na lijjantiku ci barke kii joxoñ foto sëñ Fallu bi waa ji xool ko mu ne ko mbaadu croix bee tax nga di ma xool mu ne ko waa mu ne ko man du ma jullit waaye kii mooy sëriñu ko jaaxle waaw ku ne mën naa doon sa sëriñ nag moom waaye sama baay nee na daa siyaare barabu sëñ Tubaa génn Fek mbolo mi fess del seigne Fallu jël baram jaarab haq xeb feug ci buntu bi da way borom barak bi liggéey bi son teddi fi di noppalu ngeen koy sonor rek na bis ni ki bu ko kenn waxati aajo aajo ju op talibi am na ma ko wax ma fajal ko ko mu del àndaata ko serignam man ma wax ni ba seigne Fallu waxe ba lolu ba legi da xam loolu genn aajo ko ko ma sax aajo mu faj ko njàqare lu ma sa dugg ci am noppam sun borom di din na njàqare gogo tawat ju ma sa dugg ci am noppam sun borom safara nako yalla ko rus dafa am koo xamante nii ndoxum cité ko dal ndoxum cité mu metti lol ñu ko ci ab sëriñam ne nañ ko yóbbu ci sëñ bu mag bi sëriñam boobee bu daan wax sëñ bu mag bi sëñ Fallu daan wax ñu fekk ko ndindi keroog biñ ko yóbbu daanaka dañoo jël ay morsa laxas ko ci yaram bi ngir ndoxum siti dem na ba yaram bi commencé di mel luy ko di dagg keroog bi ñu fekkee sëñ ndindi ne ko dañoo andi ku tawat suñ mu ne anamu ñu ne ko ñu ngi ci oto mun leen na wàcc ñu ne ko mbàkke moom kay daanaka mu ne su ko wàcc mu ne déedéet waaye ni ngeen defoon ba yéegal ko rek ñu leewu ko andi ko teg ko ci kanam sëñ Fallu biñ laqartee sagar yi yaram waa ngi xeb-xeb yi suñ ko bisimilah jàmm ana leen doon waa ji saalit ne ko mbàkke man li ma dal xaw ma lu mu doon suñ Fallu ne ko waay kii nee na xamula bàyyil yaramu jàmbur mi ñi ko fi andi xamula man mii ko andil xamula génne yaramu jàmbur keroog bi muy génn kër sëñ Fallu génne wàlli wut yàllaa ko ko mayee dikk nañ wax ko nit ku feebar sëñ Fall ne waa ji fekk waa ji feebar na bañ tëral boo masaane feebar bu njëkk ba ñàkk ci yaakaar dañ lay wéer ci ak garab ñu wéer ko ci ak garab di xaar mu faatu yónnee ci sëñ Fallu waa ji wax sëñ Fallu feebar sëñ Fallu ko dara dañ ko baax na dégg naa ko mu génn di xultu ay waay xam nga naagam gi ñuy wax ku feebar ñu wax la joxoo ma ñaan joxoo ma dara ndekete fañ bàyyi woon waaje ca garab ga seen na am picc dikk mel ni lu xar gémmiñu waa ji am lu mu ci dugal waa ji tisit na jërëjëf sëñ Fallou ndekete boobu sëñ Fallou yëg na ne bu ko joxoon ñaan gi balaa yegg mu dee moo tax mu yónni ko picc mi moo gën a gaaw ndax li yàlla bind lépp ko déggal nag moom li ko sëñ Tubaa daan liggéeyloo li ko sëñ Tubaa liggéeyloo tax mu andi ko mooy murit buñ dugal ci biir bàmmeel sëñ Fallou lay nangu moo tax gis nga <laughs> baye ba ñu négocier ko moom fii de bu gantoo rek sëñ Tubaa gàntu maa la ko wax nag daa am koo xam ne dañ koo jox ñaari xar di ko joxloo sëñ fallu benn bi di ko joxloo sëñ keneen beneen ba ci des mu yóbbu xarum kooko téye xarum sëñ fallu sëñ fallu ñëw di siyaare si sëñ tubaa bi mu gisee sëñ fallu di ñëw di siyaare si sëñ tubaa mu gaaw njëkkanteeg moom dem ci sëñ bi delewetal sëñ tubaa ni tël dajeeg moom ne ko fexee leen a jubóog Mouhamadou Fadal yow ma koy am du ma dimbali kenn moom laa leen di booleel loolu tax waykat wa ni ku sopp sëñ fallu booy dee tabbi jannatuhoo ku noonu sëñ fallu booy dee naari yàlla yowmal qiyaamati yowma alqiyaamati yowma alxasri bun ca demee Cheikh Bamba jiital moo nuy ramu yàlla ku sopp Fallu boy tabbi jàll ku noonu sëñ Fallu boy naari yàlla kon nag Serigne Saliou waa xam naa loolee sëñ Moussa Ka waxoon rek laay daaneele dafa am benn waay boo xam day siyaare ji ab sëriñam sëñ Blaat daa feesaani woon feesaani bi mu feesaanee am ndawal boobu nag ndawal yombut kaay sëñ Tuubaa àjjana loon war loon nun murid yi àjjana nga xam man nga fay nekk nag muy mettee ka neex ba ki dem àjjana waaye di nga dem àjjana moom loolu murid yëpp xam nañ ko daanaka jërutu sax nekk fi dina bëgg yooyu naan gars yi duñ def léegi duñ def laa yooyu moom amatul problème léegi déet moom sawaraa ngi ne ajjanaa kuy dem sawara yow demal rek te bàyyi nu sunu ajjana yi ji suñ tuwaa fàggul nu yéen itam ah dama ni ñaari kër la yow kay demal fee ñun suñ tuwaa fee la ñu yóbbu ñu dem bu nu yóbbaale waa ji daa feesaani dëpp am ak ndawal ndawal yombutoon sëñ tu sëñ Fallu nee na sëñ Tuubaa moo leen warlool àjjana waaye man Mouhamadou Fadal maa ci boole addina ju neex moo defal murit yi jàmm jeeg yu neex yi moo waral murit yi mel ni ñu xawaare pisu ser yi ni sol mbakke yaa nu koy jal ko ca gis la muy sol lépp day valoré néegi ñax yi dem nañ taax yu for yi ñëw nañ léegi sax dañuy njoñ ay ganaar di reere man de damaa déggut kenn na sar xoole rek xanaa jigéen dañ fee nekkut jar na ko nag yéen tem ngeen génn nag naan sëñ bi ba muy waxtaan fee moo wax na jigéen ñi sarxoole waxuma ko naar gànnaar bi ñuy wax asan moo woy sëñ tubaa ne wakun mutriban bi ruqsi wa zuqni saari xan la daa zikris mi am daa ñuy tux ni bu ñuy tagg sëñ tubaa mbaa ñu koy waxtaane na ngeen feeñal seen mbégte ci dukkat ak sarxoole ak fi tasu bu ngeen ko defee am li ngeen bëgg kay bi mu feesaanee ba dëpp Fek seigne touba pencum njaareem muy jiite timis waji tak ndawal gi fi ndawal yombut da tak tak ni def ak nomba la ko def tak ko ci ndig li walé ko <laughs> ndawal da yombon waaye li garaaw moy waji da dem di togg ndawal gi ta ñor mu di ko togg ta ñor mu di ko togg ta ñor mu di ko togg ta ñor ba fajar di waji jot mu tit daw ci ab sëriñam wax ko ko sëriñ ba nak du murit ne ko dama wut ndawal gi di ko togg ta ñor fek da baye bu guddii mu di ko togg ngir bañ mu sëñ ba di borom xam-xam nag ne ko waaw yow bi nga amee ndawal gi foo jaar mu ne kooku ñuy wax sëñ bu mag bi ñett nag moom senegal li ñuy mën a mën a werante wuuteeguñ ci moom ba léegi borom xam-xami Sénégal yëpp ci dëppoo mooy sëñ bu mag bi ak Xaadim Rasuul ak ki demoon géej boo nekki ki demoon géej xel yi du dem ci mool yi nappi woon géej kay jën biig ci lañ añ tey jii am na ñoo xam ci jën yooyu ci lañ añ tey waaye seen xel demut ci ñoom boo seigne bu mag bi ñu judd won 1815 ak 13 ñu sa xel du dem ci kenn seigne touba dong lay dem boo khadim rasoul ñom Omar ak usman ak ali lañ daj waye kenn moomu ci woowu tur seigne touba lañ ko léelu mom ñepp ci depo waaw magal gi waxali wu mak fi ne bo demone ba Mali nga bindu lettre bind ci seigne bu mag bi lañ koy jox bu dikkee senegal gi ñepp lañuy tegg dem jox seigne sëñ Muntaxa fa sama am la mom mune ko sëñ bu mag bi de rom naa ko muy jitté timis mande ci julli ga mune ko waaw koku bu kabaré kuko fété ginaaw do dem sawara motax ngay togg ndawal gi mënta ñor ni sëñ bi ngani ni ngani ni ko dama ni bu kabaré lu fété ginaaw du lak mune ko non la démé mune ko waaw mune ko man bayina ci yow bis ni ko tay man damay dem bokk ci koku fofu la dem bokk yow mom bayina la fofu la bëgg bokk ah amna genn kilifa sax bi yoonu murid di di di tambuli di kuy waxtaan ak mbooloon naa leen na ngeen moytu ceeli yi kafe këf leen benn taalibeem ne ko waaw sëñ bi ñuy ceeli yi mu ne ko yoonu murit wii di ju di kii mu ne waaw ah, ah, yow kon yow sëñ bi ban dalee toog fi yow ba léegi nun weesoogu ne ay cooc ba ceeli yi dinu nu këf mu ne teg mu ne ko man bàyyi naa de damay dem cee ceeli di kafe waaye dootuma doon ab cooc benn ceeli di ma këf man yow banaa la ah, waaw ah eh, day dara mu bàyyi way juróom dogoog keroog bi mu nekkee ci kër sëñ Tuubaa ba ñu woo ko ne ko sa waajur feebar na mu ne dogoo woon naag man de adduna ak alaaxir sëñ Tuubaa ne ko déedéet attaril ko aaya waqadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم alquran rek li <laughs> moy wax ni fi ne gaay yi nga gis ñetti ay rek lañ ci mokal wala ñetti baat di leen bëgg ray ci mbedd yi <laughs> sa joxon di arab loolu ñu dugg ci alquran murid mokal lañ ko dañoo yaru rek wala <laughs> rek li fi ne yi gaay yi man yëpp talibé señ Tuubaa man nak gis na fi ci borom baylar yi ño xamanteni bis bu señ Tuubaa mo wote won am fecc buñ duggé fi nga xamni ni dëgg la da ma la ko wax di gis na ci ñoo xam bu señ bi wote won football nga xamni batay lepp leer kérok sëñ touba da yëkëti ñaari ëmb jox ko ne ko yobul ñaar yëpp bu tekkil benn bi li fekk jeexut bul tekki bi ci des bi démé demee tekki benn bi fek ci sangal mu diko toggal wajuru yi di ko toggal diko ko toggal la dess ci sangal sa bam mu rek wajuru lek ko daal faatu mu ba ci dess nekati ay càngaay la ci sëñ touba def wajal na bu yàgg ak parfum ak mu suul waajur wi daw dellu ci sëñ tubaa ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ko yàlla mu jéggal ko mu ne ko sama buntu kër gi ku fi ronu jox ma sa bopp ñu jéggal sa juróom-ñaari maam loolu sëñ tubaa dong lañ ko mën a amee loolu tax ne kii ku ko gis sax ku la gis ku gis ka gis waajo ko gis su ngeen demee ca booba bis mu ràmm leen kenn du torox soo féetewoo di ko bindal day féetewoo di la dundal nga koy bayal di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox leeram nga tax lay ami gaay tëddoonde woo ko ci sa baay fekkoo ko woon ci say nijaay ku seetlu rus a sax yàlla nu yàlla dimbali ñu sax dàkk ci bëgg sëñ Touba ak na ko liggéeyal bayit yii may bëgg a jàng ci jësubul xoloob nag dama bëgg soxna yi ku ci am ku ci bëgg boroom kër te amagoo ko nga fas ko ci ku ci am boroom kër te mënoo am tu tànk nga fas ko ci jigéen ñi it bu njëkk moom boroom kër rekk lañ leen daan ñaanal waaye léegi bëgg nañ xaalis ngeen fas ko ci Gorni, ñi ñi ci amuti soxna bala sedd be gëna jam yalla ngeen ami soxna baxna ci man lima leen wax xamna ko mom dama ci am experience man fi ne ngeen ami soxna yeen ñi ci am ben ta ñime ko ta ñime doli yalla ngeen doli waye nak waxuma dem naan dama demone ci jangé xam nga seigne Cheikh lim def taw ko fen dima may soxna ta taguma ak lañ ci dug mom kay bo ñime wutul boo ñemewut nga bayyi rek ñi bëgg tukki yalla nañ tukki ñi bëgg a nekk fii di tedd yàlla nañ sa tedd barke khadim rasul الله دج القلوب وعلى سوي المقامات الهلا وحزبه وعشيمه قد قام خير البصر وسط الخيار سمر إلى زيد تكبر كالبدر واستأنجم يوم البيت استدل الله صدى الخطال يوم ترى رفي الرجال يوم الرضا والوجان وسالك اليوم فالله لزهد إن ورباح لزهد قاء صلاح لكل ساقس مسلم يوم به قد غفر سنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كلمة لا خسر الضحاب وهم عن أسلق الضاب سور فاعهم من تناسى الموتى ما والكل منهم ساجوا آية يقل خاف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 xadiimu man sumaatu muhammadu jaa ilayka ahmadul mbakiyo wasaadoo ahmadu kal aliyo laxaasa abdullahi xaadimu rasool duniyaa wa uxraa xismatan wa xayra sool laxaasa abdullahi xaadimu rasool دنيا واخرى عزمة وخير رسول لا عبد الله خادم الرسول دنيا واخرى عزمة وخير رسول برك خادم الرسول واو دوال يوتيوب nga bind xelkom production nga abonné te bes ko les notification bi manager tout bepp vidéo